kon mi ngi tëj li nga xamante ne moom mooy masala yi aju ci wàllu saxeex mu ne xaatima lii ak tëj la maanaam li ñuy wax conclusion li axdi matnin min musannafin yajib عرض على أصل وعدة ندب ومن لنقل في الحديث شرطه رواية ولو مجازا غلطاه bunt bi bokk na ci bunt yi nga xam ne ñoom ñooy gën a gàtt ndax ñaari bayit kese lañ am en réalité moom ci jëmi boppam ab conclusion la rek maanaam day leeral benn masala boo xamante ne lu am solo la loo xamante ne lu mat a bàyyi xel la parce que condition yi nga xamantene mom lañu la li nga xamantene mom moy hadith bu wér ak tokhal hadith bu wér ak li nga xamne mom lañ wax ci mustakhrajat yeeg yi ci aju ak mustadrakat yi manam nga xamne ne ay téré la comme niñ ko gisee bo ba léegi nga xamne pour hadith bi ñu mën ko japp la budda mu nek ay hadith yo xamne day am isnad yo xamne day jokkolo euh, nak mu dess nit koo xamante ne moom dafa bëgg solo xadis dafa bëgg wax ne am na xadis boo xamante ne mi ngi ci téere sàngam wala am na xadis boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wax na nangam ak nangam mu bëgg koo jëlee ci xadis ci téere yoo xamante ne téere yu wér la nga xamante ne xadis bi xadis bu wér la war a doon euh, comme que xadis dafa bokk ci condition yi muy wéri mooy دفور نك مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولا ولا ولا ولم يكن شذا ولا معللا كم نيغا خامن نون لنجو غيسه دافا ورا ام كونديشن يوي جورومي كونديشن يوي امنا ثقه موكو جيلو سي ثقه با مو ييغ سي يننتي بي صلى الله عليه وسلم مو نيك تاميت لو خامن تاني ا داي جوكلو day jokkaloo warul nekk loo xam ne ay dog-dog da ci am warul nekk tamit loo xamante ne shuzuz da ci am maanaam akuk beru ci maanaa gi wala ci mat ci wala ci ci ci ci càllale gi niki noonu warul am sikk du ci yax bi du ci càllale gi loolu su fekkente ne dafa dajaloo bu fekkente ne dafa am euh, nit ñëw ci jamono yu mujj yi par exemple bëgg sukkandikoo benn xadis comme jamono yii ñu nekk wala euh, avant bien même bien avant même par exemple ñëw ci sixième siècle bi wala voilà ginnaaw gàddaay yent bi sallallahu alayhi moo tax ñuy wax <laughs> waaw wala wala sax septième siècle bi plutôt sixième wala septième siècle bi plutôt euh, comme ni nga xamante ne noonu la nekkee euh, xaalu ñoom imam an-Nawawi نيم al ابن صلاح رحمه الله على الجميع ak ñeneen ah est-ce que par nga sukandiko ci hadith bu nek ci sahih imam al bukhari wala bu nek sahih imam muslim wala bu nek ci muwatta bu imam malik wala ci sunan imam abu dawud wala bu tirmidhi wala bu imam an nasai wala bu ibn majah wala bu imam ad darimi wala bu imam ad darqutni wala bu imam al bayhaqi آه، ولا ينينك ينين وصحيح صحيح ابن خزيمة ابن حبان مستدرك ابن الحاكم آه، أجينا رحمة الله على الجميع إسك دعي أبليجي طول تان أم إسناد بولاي جوك كله بتشي نيوم بفري إسناد بوارا إسناد بوير إسك كيشون بوب دي سولفيو بس ك لتخ مي سولفيو موي ني حديث دميلا حديث دي أم تعلله لولا لا يوخ من اللي أخذ moo tax mu indi gëstu bi tuddee ko xaatima maanaam day tëj mu ne li axdi matnin ngir jël ab yax yaxu xadis min musannafin ci ab tiiri boo xam ne dañ koo taalif yajib day war ardu gaarale gaaral maanaam comparé ko alal aslin ci aw cosaan wa iddatin bu cosaan ya bare nag nu dib loolu luñ sopp la wa man képp koo xam ne nag li naqlin ñeel toxal fil xadis ci xadis yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam sharata daf cee shartal riwaayatan ab riwaaya maanaam nit ki am ci càllale gu ko jokkale ba ci téere booba walaw mujaazan donte ijaaza ci yoonu ijaaza la koy amee maanaam du lu mu dégg sëriñ bi wax ko du itam lu mu jàng ci kanamu sëriñ bi sëriñ bi ne ko waaw wala yu mel noonu mais ijaaza la ko amee yoonu ijaaza dinañ ñëw ci yoon yi incha allah parce que yoon boobu yoonu ijaaza am na maanaam nu ñu koy jëlee comme ni nga xam ne lu ëpp ci téere yi ñun ñii noonu lañ ko solo solooyee walillahi alhamdu wal minna xullita mu ne ku mel noonu mu ne xullita dañ koy jumloo maanaam kooku dafa tarxiis li mu def li mu wax du noonu euh, maanaam mooy lan kon wax nañ la li nga xamante ne ci loolu la defee euh, maanaam li nga xamante ne moom la tegee bunt bi maanaam mu nekk loo xamante ne daf koy tëjee téere bi daf koy tëjee partie li nga xam ne moom mooy ci saxeex parce que di jëfandikoo ay xadiis dafa nekk loo xamante ne nit ñi dañ koy soxla déjà ci jaamu yàlla jàng xadiis ci jaamu ko yàlla borom subhaanahu wa taala jàng xadis yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir euh, xam waxu yenent bi sallallahu alayhi lan la maanaam toxal ko ak jàngale ko nit ñi mën koo xam ak itam euh, mën cee laye di ko utiliser comme lay comme loolu dañ koy soxla comme niñ ko waxee loolu moo tax mu def bunt bi mu tuddee ko xaatima ngir tëje ko ngir traité ca masala bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu junj léegi mu ne li axdi matnin ngir jël ab yax yaxu xadis min musannafin ci ab euh, musannaf mooy ab téere bu ñu taalif loolu la ci jublu jubluwu ci comme li ñuy wax musannaf bu ibn abi shayba bu imam abdurazaq comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxoon bi ñu nekkee ci biir ah rahmatullah alayhim maanaam jubluwu ci loolu fii musannaf li mu ci jublu mooy ab téere rek bu ñu taalif mu nekk téere yi nga xamante ne dañ leen di sukkandikoo comme saxix imaam al buxaari yi saxix imaamu muslim saxix ibnu xuzayma bu ibnu xibaan ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ay xadis yu wér ñoo ci nekk ak seen mustaxrajaat bu imam abu awaana bu imam al ismaili bu imam abu nuaym asbahani rahmatullah al jamia loolu bu fekkente ne da bëgg jël xadis ci téere yooyu ngir nga mën koo jëfe wala nga mën cee laye ngir benn masala fiq wala masala bu mu mën a doon ci masala yi domaine xam-xam yi bu mu mën a doon mu ne yaji bu day war arda gaarale ko maanaam comparer ko maanaam da ngay war kon jël téere boobu nga comparer kook ala aslin ci cosaan boo xam ne ci lañ ko sottee mais cosaan boobu cosaan bu wér la euh, lii nag dangay xam ne ñoom dañ koo soxla woon ci seen jamono yi nga xamante ne imprime kii euh, gars yi daanañu di éditer yu téere yi comme nii dañ ko daan sotti ñoom dañ ko daan sotti par recopier ba bu yàggul dara lu bëri ci téere yi noonu lañ ko daan def dañ ko daan sotti par di ko recopier comme que nag noonu lan daan def moo tax nga di ko comparer ak cosaan bi nga xam ne dafa wér moo tax souvent téere yi bu ñu ko bindee dafa am ay luñ ay maktaba yoo xamante ne ay bibliothèque yu mag yoo xamante ne yooyu foofu lañ ko daan def téere yi nga xam ne ku ko bëgg a gis foofu nga koy fekk nga xam ne cosaanu téere bi fa lay ne wala boog mu nekk cosaan boo xam ne dañ ko recopier xool ko vérifier ko ci cosaan yoo xamante yu mag yi et cetera nga xam ne dañ koy def ci bibliothèque yu mag comme yu nekk Damas am na bu nekk Égypte kii Misra euh, am na jumaa yenent bi sallallahu alayhi wasallam et cetera maanaam euh, ay bibliothèque yu mag la yoo xamante ne euh, am na bu nekk Turquie hein et yi ci gën a mag mooy yi nekk Syrie Damas et yooyu dañ ko daan jël denc ko fa am na nekk fii Andalousie et cetera maanaam fii Europe fii nii sax même France fii nii am na ci yu bari yu fi ne euh, ci hmm, fi ñuy denc archives yeeg yooyu donc yooyu nga xamante ne da ngay yor archives yi doo yor nusxa yi nga xamante ne ñoom ñooy yu original yi nga xam ne dañ koy denc précisément nga xam ne dañ ko comparer soit borom téere bi ci boppam bu mu ko bindee téere boobu lañ jël def fa wala boog téere bi nga xamante ne ay téere yoo xamante ne dañ ko comparer ak original bi nga xamante ne ñu wóor ñoo ko toxal ñu wóor wóor ñoo ko daan bind recopier ko et cetera nga xamante ne par exemple manuscrits yi yu bëree bëri ci manuscrits yi dafa am ñeneen ñu ko daan yor ngay gis ñuy comparer léeg-léeg dana manuscrit bi ngay gis moo tax téere yi nga xam ne dañ leen def seen taxqiq boo leen seetloo téere yu bees yi da gis dañuy indi manuscrit bi dañu indi au moins photocopie première page ak dernière page manuscrit bi wane ni manuscrit bi ci laa jëlee ci la ñu bindee téere bi ci lañ ko édité nii ci la ko eh, eh, eh, maison d'édition tel édité ba mu mel nii loolu dañ koy jël teg ko maanaam mu nekk loo xamante ne il faut que loolu am mu ne loolu su amee léeg-léeg mu nekk benn cosaan léeg-léeg mu nekk ay ñaar ñett ñeent et cetera moo tax mu ne waaye waa datin bu bëree bu bëree mu ne nudib loolu sopp nañ ko maanaam nombre bi lu mu gën a bari mu nekk loo xamante ne lu ñu gën a sopp la euh, imam an-Nawawi rahimahullahu taala ci charx bi nga xam ne moom la def ci saxiixu imaamu muslim rahimahullah ci njaal bi ci introduction bi euh, juróomeelu faslu bi juróomeelu dog bi daf ko def ay dog yu bari mu ne juróom juróomeel bi maanaam ci introduction bu mag bi nga xamante ne moom la def ci avant introduction sax imam muslim bi avant même imam muslim rahimahullah def introduction moom ci charxam dafa dafa def ay introduction introduction bu dafa wax maanaam juróomeelu faslu bi dog bi daf ko tuddee kifayatu aslu kifaayatu asli saxiixil mu'tamad doyloo ak cosaanu bu wér maanaam bu saxeex bi boo xam te ne mënef na cee sukkandiku mu daan ne qaala cheikhul imam abou amrin ibnu salah rahimahullah mu ne al cheikh al imam abou amrin ibnu salah rahimahullah nee na parce que moom moo ko mag tuuti sëriñ voilà euh, moo mag imam an-Nawawi tuuti rahimahullah mu ne i'lam anna ar-riwayata bil asanid al muttasila laysa al maqsud minha fi asrina xamal ne jokkaloo càllale Euh, solo ak càllale yu jokkaloo nekkul loo xamante ne lu ñu jublu la ci suñu jamono wa kathirun min al asaari qablahu lu bari tamit ci jamono yu jiitu noonu la mel maanaam càllale yi jokkaloo yi nekkul woon objectif mu ne euh, isbaatu maanaam nekkul woon objectif bi nga xamante ne moo nekk ci càllale yi nekkut isbaatu ma yurwaa nekkul saxal li nga xamante ne toxal nañ ko maanaam solo nañ ko du ne li ñu solo lañ bëgg ne wane ni lii wér na moo tax ñuy solo isnaad yi iz laa yaxlu isnaadun minha an cheikhin laa yadri ma yarwihi wala yadbitu ma fi kitaabihi dabtan yuslihu li an yu'tamada alayhi fi subutihi mu ne ndax lu tax mu ne parce que de toute façon li nga xam ne moom mooy li ñu li ñu xam mooy ne euh, euh, càllale yi du mucc moos mu am ci ab sëriñ boo xamante ne ci biir càlla ji def ci nekk ci biir càlla la ji def ci nekk te xamul li mu solo lu mu doon maîtriser wu ko te du takk tamit li nga xamante ne moom mooy li nekk ci téere bi takk goo xamante ne war naa mën a tax ñu mën a sukkandikoo ci ay ci solo gi ñuy solo jëlee ci kookee mu nekkoon kon wa innama al maqsuudu biha ibqaa silsilati al isnaad allati al umma zaadaha allahu karama وإذا كان كذلك فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن ينقله من أصل مقابل على يدي على يدي ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول mu ne ah, bu fekkente ne loolu sax na kon nag li ñu xam mooy li ñu namm ci jubluwaay bi nga xam ne moom mooy objectif bi tax ñuy solo ay xadis yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam wala xadisu téere wala téere yi wala yooyu di ko soloo ci ay càllale yuy jokkaloo ba ci borom téere bi wala càllale yuy jokkaloo ba ci xadis yi yenent bi sallallahu alayhi mooy rek ngir isnaad li nga xam ne mooy càllale yi des comme ndax lan ndax jagle xeet bi la dinañ ñëw nag ci càllale yeeg ngëneel yi ñu am jagle yeeg yooyu parce que de toute façon lu càllale gi maanaam eh, njariñ gi bari nañ mais yooyu incha allah dinañ ci ñëw kon desal càllale yooyu moom mooy li nga xamante ne moom moo fi maanaam moom mooy objectif bi nga xamante ne jagle bu rëy la boo xamante ne xeet wi moo ko am yàlla na yàlla dolli xeet wi ak teraanga mu ne su fekkente ne nag mbir mi demee na noonu kon yoonu képp koo xamante ne da nga bëgg layo jël laye ci hadith bo xamne dafa nek ci sahih imam muslim rahimahullah nga utiliser ko ak manam um, ci hadith bu nek sahih imam muslim rahimahullah ak téré yu melni mom moy nga toxal ko ci ci ak manam ciosan bo xamantene dang koy comparer dañ ko comparer ci loxol ñaari nit ñoo xamne ñu woor lañ ñoom fekk seen cosaan bi tamit dañ ko comparé woon ak maanaam euh, dañ ko bindoon ci ay càllale co cosaan yoo xam te ne yu bari lañ yoo xam ne dañ ko solo ci ay xeeti solo yu wuute loolu su ko defee ànd ak ne téere yi de toute façon siiw nañu ba tasaaro ak sori gi nga xamante ne moom lañ sori ci nit ñi di di ko mën a soppi wala di ci am dara luñ ciy dindi mbaa ñu ko ci yokk ah bu boobaa day daal di tax ba nga xam ne yow lii kat maanaam ñaari manuscrits yii kat bi ñu nuroowee parce que comme dañ ko daan sotti ak loxo ñaari manuscrits yooyu ñaari yooyu ñu sotti ak loxo ni ñu dëppoowee noonu kon yow cosaan kon ça ce qui veut ni mën nga xam ne xadis yi ci nekk maanaam nii la téere bi meloon nga daal di koy mën a jëfandikoo ah, dégg nga mu ne faqat taksuru tilkal usulul muqaabala biha kasratan tatanazzalu manzilata tawatur aw manzilatal istifada mu ne de toute façon cosaan yooyu noonu nga xam ne moom la ñu bindoon recopier ko ci Sahih Muslim bu original bi ñooñu recopier ko et cetera loolu bari nañ bari waaye boo xam ne ba pare tasaaroo ci réew yi nga xamante ne daanaka léegi mën nañu yegg na degré mutawaatir nga xam ne daanaka sikk ne mënatuñoo sikk ci ne nii la meloon ci bi ko imam Muslim bindee rahimahullah ak ñu melni ñom rek comme bu imam Bukhari non la mel bu ibn khuzaimah non la mel bu imam Abu daud non la mel et cetera mu wata bu imam Malik bi non la mel rahmatullah et cetera et cetera xam nga nga xamne mom c'est sûr que ni la wala bok mu nek lo xamne en tout cas siwna dal mu ne hadha kalaamu shaykh li le serigne bi wax manam al shaykh al imam abu amr ibn salah rahimahullah mu ne wa hadha alladhi qalahu mahmulun ala al istihbab wal istizhar imam an-Nawawi rahimahullah daan ne lii nga xamante ne moom la wax dañ koy yóbbu ci ne dafa nekk loo xam ne dañ koo sopp kese ak tamit ngir mbir mi gën a leer gën a feeñ kese mu ne wa illa fala yushtaratu ta'dadul usul ta fala fala yushtaratu ta'dadul usul wa riwayat mu ne waaye nag kenn du su kenn du chartal maanaam bariwaayu cosaan yi ak riwaayaat yi ak bariwaay bi loolu dañ ko sopp kese mu ne fa innal fa innal al asla sahih al mu'tamada yakfi wa takfi al muqaabalata bihi wallahu a'lam mu ne ndax cosaan boo xamante ne bu wér la bu ñu mën a sukkandikoo benn kese doy na doy ba pare def na nangu dana doy pour ñu mën ko comparer bu ko defee boo ko comparer ak cosaan bu wér rek benn kese da ngay daal di mën dem léegi nag suñu jamono ñun soxlaatuñ loolu da ngay dem ci bibliothèque bi rek wala ci librairie bi nga jënd fa benn muslim wala saxaxul buxaari day daal di doy nga mën a nga mën a taxaw ne téere bii mi parce que dañ ko maanaam téere bii mooy xadis euh, euh, bii mi ngi ci saxee muslim nga daal di ubbi sa téere liir loolu moom man loolu day daal di doy pour nga mën ko jëfandikoo mën ko solo kon solo xadis bi maanaam mën nga mën ko jëfandikoo mën ko laye manam di utiliser di jëfe hadith bi ba paré diko mëna layé ba paré xamné hadith bi effectivement nga mëna taxaw né mi ngi ci sahih muslim wala mi ngi ci sahih bukhari wala mi ngi ci benen téré ci téré yi maanaam obligé wuloo ngay jël diko comparer nan xaarama dem xooli ci comparer ko beneen téere parce que de toute façon ni lañ leen imprimer en masse ba paré tamit wér nañu sax nañu de toute façon siiw nañ siiwaay way bo xamanténé bu ci amé lu ci soppeku de toute façon dañ koy gaaw dañ koy gaaw xam du nak importance tamit continuer di jang téere yi ak di di di di di seetlu parce que euh, euh, euh, c'est très important parce que par exemple buñu xolé xoolee dañuy changer effectivement yenn téere yi dañ koy changer manam buñu imprimer yenn affaire yi comme mën nañ ci joxe exemple moy khashatu xaachatu ala jalalayn euh imprim kii biñ ci defat manam nuskha yu bees yi maanaam impression yu bees yi édition yu édition yu bees yi Euh, surtout maanaam li ko dara bi bi daaru kutubul ilmi yaa def mooy yu beesi rek dangay gis dañ ci dindi benn partie bu am solo boo xamante ne euh, ci sa borom subhaanahu wa taala bi muy wax naan afaman zuyina lahu suu amalihi fa raahu moom ñoom bi ñu ko édité waatee dañoo dindi partie bi nga xamante ne moom la imaam al Afaawi rahimahullah doon waxee ne am na nit ñu feeñ ci suñu jamono ñoo xam ne ñoom la aay bii di waxal naan ñoom de dañ leen a rafetal seen jëf yu ñaaw yi ñu gis ni loolu taaru la te ñoom ñooy wahabit yi maanaam mu ne wahabi yi ñoom mu ne parce que wax nañ ne aaya bi dafa wàcc ci xawaari ji nga xam ne dañuy daganal di tuur deretu jullit ñi ak di leen yéefirloo waaye maanaam ñooñu nag te ku gis seen doxalin suñu jamono te ñoom ñooy wahabi yi di nga gis loolu partie boobu dañ koo dindi complètement ci ah ci édition ci édition yu bees yi boo xoolee aussi euh, téere bu ñuy wax al bahrul muhit tafsir boobu tamit am na foo xamante ne ci bi muy wax naan am na benn bi imam euh, euh, abu xayaan al andalusi rahimahullah di wax naan am na benn waay boo xamante ne bind na kitaabul arsh wax ci ay wax yu doy waar wax yoo xamante ne waxu yéeféer la maanaam bi mu waxee loolu euh, ñoom te bi ñu koy édité parce que xam nañ ni kitaabul arsh ku ko bind ibnu taymiya bañ gi ñu bañ maanaam xam nañ imam abu xayaan ak tafsiram yi mënuñu ko dindi ñu ne garaaw nañ ko édité mais ñu dindi partie boobu niki noonu al azkar bu imam an-Nawawi rahimahullah am na partie boo xam te ne ñu koy édité waat parce que édition yu yu yàgg yeeg yu bees yëpp da ngay gis affaire boobu da nga ci da nga euh, ngay gis euh, partie boobu ñu am luñ ci dindi tamit euh, maanaam ñu remplacer ziyaare xabru yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñu tuddee ko ziyaare jumaa yenent bi sallallahu alayhi wasallam alors que imam an-Nawawi ziyaare xabru yenent bi sallallahu alayhi wasallam la nosee bunt boobu parce que ñoom pour ñoom dem ziyaare ji xabru nii dafa xaram dem dem ci xabru en fait di juge fi dem rek ni damay ziyaare ji yeneen bi sallallahu alayhi ci xabru rek da pour ñoom daa xaram maanaam ndax ñoom bokkaale la moo tax ñii dem ziyaare xabru yeeg yooyu ñoom dañ naan xubur yi yónnee leen leen tudde maanaam ñiy jaamu bàmmeel yi ñoom noonu lañ leen tudde euh, loolu moom moo waral euh, ñu ñu xam nañ imam an-Nawawi imam bu mag la rahimahullah téere boobu al askar mënuñu koo dindi ñu daal di gis nga bu koy édité ñu def loolu et cetera maanaam am na ay ay affaires yu mel noonu yoo xamante ne moo tax il faut faire attention ci édition téere yi tamit léegi loolu moom moo tax il faut nga xam ban édition ngay jël est-ce que bi baax na baaxul et cetera ci yenn téere yi maintenant nag am na téere yoo xam ne de façon mënuñu koo soppi comme li nga xamante ne tey ku mel ne al albani su fekkonte ne mënoon na euh, fexe ba ñu éditer euh, li nga xamante ne moom mooy Euh, euh, euh, saxeexul Buxaari dind ci partie bi nga xam ne ci kitaabu tafsir loolu la ci waxee ne imam maanaam imam al Buxaari raxma par kitaabu tafsir daf ne daf ne kullu shay'in haalikun illaa wajhahu mu ne ay illaa mulkahu ba mu des nguuram lépp day alku lépp daf fiy jóge ba mu des nguuru yàlla rek moo dul fi dul jóge wajhahu moom mu ne ay illaa mulkahu loolu ta'wil la tudd maanaam interprétation la du du tafwid léegi euh, al albani moom nee na loolu ëpp imaam al buxaari ëppante na ak di wax yu mel noonu maanaam imaam bu màggee noonu du du waxee noonu mais kon kan moo ko def ci saxiix bi bu fekkente ni imaam al buxaari wax du waxee noonu ku ko def ci saxiix bi kooku bu mënoon dindi ci saxiix bi loolu da koy dindi moo tax Euh, euh, yu yep nak manam muy fitnatul wahabiya manam fitna vraiment fitna bu rëy la ah, euh, li nga xamante ne <clears throat> mom lañu indi legui ndax dañu commencé di éditer ay livres borom xam-xam yi rahmatullah alayhim di changer ay mbir ci bir defena nit ñi duñ ko xam mais nit ñi sans borom subhanahu wa taala fi ci yi kenn mënu def am dara fi soppi lo xamante ci diine ji la te nit ñi duñ ko gis duñ ko histoire bu foo sax soko waxe dina am lu mu bon bon benn nit buy taxaw daal di xam ne eh, gars yi li ngeen di wax yi dara du ci deug li foo la li histoire bi du du amul melul ni parce que euh, c'est comme euh, parce que tout le temps motax jang hadith bax ak lepp lo xamne dafa aju hadith rigueur bi nga xamantene mom mo ci aju dafa am solo kéro rek ma ngi dégg ben way naan euh euh, euh dafa jangé nee na dëkk na xawma ma ci ba dëkk la dem nee na dëkk bi daal dëkk Euh, euh, benn euh, góor la goo xamante ne mm, tudd na turam nee na góor ga moom ak Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu moom moom ak sax ñoom Baye laa Niass ba pare moo leen mujjee génn àdduna moo mujjee génn àdduna sax ñoom Sëñ Tuubaa radiyallahu anhu nee def na ci dëkk boobu juróom-ñaari at kon moom li muy nettali xam na ko bëgg cee jugee nettali benn affaire ci Seydi El Hadj Malick radiyallahu mais problème bi mooy ana mais mais yow góor googu gisoo ko dundoo ak moom. yow ci dëkkam rek nga nekkoon mi ngi mel ni man man ni ma ni nu mu tuddati eh, eh, eh, dëkk naa ndakaaru xaw ma juróom-ñaari at te ndakaaru xaw ma kan mos na faa nekk maire te kooka ba muy génn àdduna ak yow dafa yàgg diggante bi wala ku ne la rek li may wax xam naa ko parce que li ma lay wax parce que man dëkkoon naa nekk naa Sénégal pendant 6 6 ans wala 7 ans wala 10 ans kon lépp lu ma la wax ci Senghor dëgg la mais après yow mosoo gis Senghor bi ngay juddu fekk na Senghor dee na léegi yow nan nga mën a taxawee di wax naan lépp lu ma la wax ci Senghor dëgg la ndax dëkk naa Sénégal six ans xam nga maanaam xam nga di genre argumentation yooyu dëgërul ah voilà comme di ma saa waajo waxoon rek <laughs> diw Tukulóor la ma ne ko lu tax mu na ma <laughs> mu na ma ñoo jàkkaarloo kër eh, jàkkaarloo kër xam nga du lay maanaam c'est vrai que dama ko don togn rek djublu jubluwuma jubluwu ci lolu sik nekul ci ni argument bobu rek djublu ko ci djublu la parce que ño jakar lo keur kene tu couleur la c'est pas parce que yena jakar lo keur rek waa tu couleur lay don parce que da nga na jakar lo keur voilà mais bon c'est à dire que limu ko bëggone won fofu moy dama ne ko argumentation bi nga joxe façon bobu mo baxul manam kenn du argumenter nono argument dafa am luñ koy tërale aussi voilà <laughs> deng euh kon euh, Euh, euh, euh, ala kulli xaalin li ma ci jublu rek mooy rigueur boobu il faut que ñu am ko même suñu histoire par contre ñun suñu histoire ñun sénégalais yi moom amul dara loo xamante ne mën nañ ko ci wéral ak saxal ko ci lu dul li nga xamante ne dëgg-dëgg maanaam parce que même maanaam yu néew lu néew a lañ ci mën a saxal lu néew a néew a néew a lañ mën a saxal ci histoire mag ñi laa wax maanaam ñoom Cheikh Hadji Malick ñoom Sëñ Touba ñoom radiyallahu anhu et cetera ba ci ñoom Cheikh Omar sax radiyallahu anhu ak ñeneen lu néew a néew a néew lañ mën a saxal lu tax lu tax ñu mën a saxal lu néew parce que tout simplement affaire bi dafa simple mooy ñun dañu basé wu ci wax loolu garawul mais li garaw mooy jikko yi ak nit ñi ni ñuy yokke solon seen ay humeur ak solon parfois léegi léegi fi ñu toog la ñuy defar benn affaire léegi léegi di nettali léegi léegi léegi ñu defar benn histoire Euh, bari gi mu bari nag te ñun ñu sàmm ci ni ñuy solo nu ñuy toxale ak nu ñuy solowee ñun bu benn waay xësee ba wax benn affaire même bu dee yaakaar naa sax la wax ñun bu ñu koy toxal dañ koy toxale exactement maanaam dañ dañ jàpp mbir mi événement la bu xew ba pare ba noppi dañuy wëlbatiku suñuy toxal mbir mi dañ koy toxale comme si maanaam euh, euh, buñ ko xësee ba toxal ñu xamati ci kan maanaam ci kan la wax di jóge dootuñu ko xamati ba pare nag léegi mu nekk loo xam day tasaaroo ñépp di ko wax nga xamante ne yow tey wax ju jubul mën naa taxaw léegi ñépp dégg ko ñépp nettali ko ñépp di ko wax fekk jubul amul benn fondement ci histoire parfois sax day dekk yoo xam ne dafa yanuwul maanaa en réalité yanuwul benn maanaa mais ñun ñu koy toxalante di ko toxalante di ko toxalante di ko toxalante ba mu siiw ba mu mel ni mutawaatir la maanaam day mel ni dafa maanaam mutawaatir la fekk du mutawaatir mutawaatir dafa am ay condition incha allah dinañ ko gis moo tax bépp wax bu wolof yépp dajaloo sénégalais yépp dajaloo di ko nettali loolu rek sax taxul mu wax ji nekk dëgg parce que amul condition yi nga xamante ne ci lañuy ñu mën a nangoo wax maanaam dafa amul dafa dañ ko vérifié wul foofu loolu moom moo tax dañ ko vérifié wul waaw euh, léegi Euh, euh, euh, pour ñëw kon manam kon il faut faire attention maintenant suñu jamono ci walu googu noonu il faut ngay xol nusxa yi surtout njëkk yi est-ce que comparer nañ ko ak ñu njëkk yi et cetera tout ça édition yi bon amna ñuy def taxqiqaat yu ki mais yi amul enjeu mom duñ ko changer mais yi nga xamné né ne dafa day ak seen mazhab dañ koy dañuy faral diko ko dindi ñoom wahhabite yi té lool il faut faire très attention té ñom ñoy yor xaaliss bi di di defar affaire lépp nak saganté yi nga xamné ñoy woté wo ci yoonu suufi yi la ñom dañoo sàggan lool lool lool ci walu édition ak yu mel non bon loolu en tout cas nañ def attention incha allah yal nañu yàlla sam ala kulli hal sa borom subhanahu wa taala mom day sam xet wi ala kulli hal dina am ay nit ñoo xamne ñom dañuy veiller tout temps ci yu mel non walillahi alhamd wal minna imam as-Suyuti rahimahullahu taala kon manam kon imam an-Nawawi rahimahullahu mom nu mu ne li nga xamantene mom moy mooy nombre bu bari mune wa illa fala yushtaratu ta'dadul usul wa riwayat bari way bi ken duko ko ken duko chartal bari wayu ciosan yi nga xamne mo lañu comparer affaire manuscrit ak sol riwayat yi li ñu soloo mu parce que ben sukkar ki ben rek day doy fa innal asla sahih al mu'tamada yakfi wa takfi wa takfi al muqabalat bihi ben rek manam nga comparé ko ben cosaan bu wir rek bu mën bu ñu mën a rek day daal day léegi motax imam as-Suyuti rahmalahu dan wa iddatin nombre manam bu fekkente ne dafa bari dafa limu nudip lolou luñu sopp la muna waman kep ko xamne li naqlin limu wax benen mbir bo xam tan tamit bu am solo la muna waman kep ko xamne li naqlin ngir toxal fil hadith ci hadith yeneen sallallahu alayhi wasallam jeulep hadith jële ko ci ab téere boo xam ne téere bu wér la bu mel ni Sahih Bukhari wa imam Muslim rahmatullahi alayhi ma ak yeneen danga cee charata daf cee chartal riwaaya tan ab riwaaya riwaaya mooy nga soloo ko soit nga dégg ko ci sëriñ kooku dégg ko ci keneen et cetera wala boog yow nga nettali ko ñu dégg ko wala boog ñu ijaazal la ko wala et cetera maanaam ah, ah, euh, façon yi ñuy solo riwaaya incha allah loolu yëpp dinañu ko Ah, dinañ ko gis ndax imam asuyuti ah, rahimahullahu taala wutal na ko wutal na ko buntu mooy aqsaamu taxamul insha allah buñ ci yegsee dinañ ko gis ah, léegi mu ne walaw mu jaasan donte ci ijaasa nga koy jëlee ndax ijaasa mooy sëriñ bi ne la ah sama riwaayo bii day jox naa la ndigal ci nga soloo ko jëli ko ci man mi ngi nii ci charte yii ak yii ak yii maanaam nga koy jëlee toxale ko jële ko ci man loolu mooy ijaaza maanaam jox naa la ndigal ci nga mën koo toxale jële ko ci man mu ne ku dul ku ku ku ne même il faut au pire des cas nga am loolu sax mu ne xullitaa kooku dañ koy dañuy jàpp ne dafa tarxiis dafa juum kese ndax lan mu ne parce que bon am na ñu mel noonu comme ñi nga xam ne dañuy chartal affaire boobu noonu comme ku mel ne euh, euh, Cheikh Aboubacar muhammad ibn xayr ibn omar al amawi al ishbili rahimahullah kooku maanaam moom ndijaay la ci abul qasim as-suhayli benn rahimahullah borom rawdul unuf bi nga xamante ne souvent dañuy faral di jëlee ci dañ dañ koy faral di tudd ci ci ci rimaax bi voilà voilà moom dafa wax ne ci sabt bi maanaam fi muy solowee sëriñam yi li ñuy solo mu ne borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci ne wérul ci jullit muy wax ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam nee na lu dul xanaa mu nekk loo xam ne daf koo solo mu nekk daf koo solo mu ne donte ci li façon bi gën a néew ci riwaayaat yi la mu ne ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar képp koo xamante ne da nga ma fenal na nga préparé te tey ko na nga préparé sa jotaay ci safara muttafaqun alayhi maanaam ne Buxaari imam muslim rahmatullah ñoo ko solo mais imam az-Zarkashi rahimahullah daf ne déedéet toxal gii nga xamante ne moom la toxal ne borom yu dëppoo nañ ci lu kéemaane la ndax li nga xamante ne moom mooy li boroom xam-xamu fiq yi ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne mën ngaa dem jëfandikoo téer ci benn téere xadis ab xadis boo xam ne mën nga koo jëfe wala bokk nga euh, euh, laye ko su fekkente ne rek wér na ci maanaam ci ab manuscrit boo xamante ne dafa wér dafa dañ sukkandiku maanaam boo xamante ne bu ñu mën a sukkandiku la waaye am maa jo jokkale sa càllale jokkale ba ci borom téere boobu loolu nekkul loo xamante ne condition la ci te loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy dëgg parce que xadis bii nga xamante ne moom la jëfandikoo de toute façon de toute façon xadis bii mu jëfandikoo loolu du lay parce que yent bi sallallahu alayhi wasallam dañ fenal mais bu fekkente ne yow leer na ne téere bii imaamal Buxaari moo ko bind nga jël ko te xadis yi ci nekk wér na mu nga nga nettali xadis ba ca nekk fenaloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy yow na la leer téere bii moom imaamal Buxaari yi ko bind téere bii mooy saxeexul Buxaari yi te téere bii xadis bii nii mi ngi ci saxeexul Buxaari yi loolu la maanaam kon yow fenaloo ko dégg nga kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo aju ci boobu buntu kon daal maanaam euh, euh, moo tax ijaaza yi du pour dara lu dul euh, surtout suñ jamono riwaayaat yi ijaaza yi yëpp pour pour desal barke bi la rek ak maanaam pour barke la ak tamit desal lan maanaam desal li nga xamante ne moom mooy càllale gi ngëneel googu noonu mu des ci xeet wi nga xamante ne ngëneel lu màgg la loolu rek la mais du leneen incha allahu taala kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo aju ci maanaam bunt bi moom mooy li nga xamante ne moom la tëje moom la tëje li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom mooy aju ci wàllu saxiix yi euh, walillahi alhamdu wal minna léegi kon partie bi nga xam ne moom moo aju ci partie bi gën a euh, maanaam li aju ci saxiix euh, li ci masala yi nga xam ne ñooy wër-wërloo ci xadis bu wér ak ci saxiix walillahi alhamdu wal minna gis nañ ko léegi incha allah ci jotaay yi di ñëw ci la ñuy dugg ci li nga xamante ne moom mooy partie bi aju ci wàllu alxasan parce que hmm, wal aktharuuna qassamu haadhi sunan ila saxiixin wa daifin wa xasan comme que loolu la euh, saxiix ak xasan ak daif ñoom léegi comme saxiix moo gën a wér partie boobu jàll nañ ko léegi xasan moo des après bu ñu paree xasan ñu doog gis daif noonu moom mooy li nga xamante ne kon incha allahu taala loolu yàlla nañu yàlla euh, Euh, may comme ni nga xam ne noonu lañ ko tëje maanaam xaatima bi ni mu ko tëje moom mooy buntu bu mujj bi yàlla nañu yàlla may tamit euh, suñu mujj rafet maanaam comme ni nga xamante ne noonu maanaam noonu lañu maanaam suñu borom subhaanahu wa taala ba ñu tëj partie bi mu may ñu tamit ñu nit ñu tëj suñu dund ci anam gu rafet mu may ñu mujj gu rafet àdduna ak àllaaxira ci lépp